jërë ngeen jëf mbokk internet yéen ñuy topp ci seen seen bii di Buzz Sénégal Actu dal leen ak jàmm ci xibaar yi nga xamante ni mooy njëkk ci bisub tey bi ñu dooree ko ki nga xamante ni moo di Oustaz Assane Seck mi nga xamante ni boo am daa amoon ay béng béng ak ñi nga xamante ni ñooy yëngutum si wàllum yoon ginnaaw bi nga xamante ni jàppoon nañ ko moom moomee di Oustaz Assane Seck nag ñu ko doon toppi ay mbir yoo xamante ni ay mbir yu grave lañ moom moomee nag di ko doon toppi li nga xamante ni mooy appel à l'insurrection ak euh, li nga xamante ni mooy trouble à du public ak li nga xamante ni mooy acte de meurtre moom moomee nag si fàttali ginnaaw bi nga xamante ni doon na def benn émission si benn télévision bi émission bi jeexee rek la ko waa sûreté urbaine daal di dem ne ko ki péet daal di jàppoon moom moomee nag doon na jàkkaarloog ñi nga xam ki nga xamante ni moo di si Mamadou Seck di deuxième cabinet ay avocat am nag doon ko ñaanal li nga xamante ni mooy liberté provisoire waaye liberté provisoire boobee mujjuñ ko koo may Oustaz Assane Seck moomee nag kàddu yi nga xamante ni moo taxoon nu jàpp ko nag moo doon wax ne ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko day bokk ci élection yi te bu ci bokkee da koy gagné ci premier tour ba beneen bi tamit mooy nee na Ousmane Sonko mii bu bokkul ci élection yi lii nga xamante ni moo di am ci mi wala ci réew day daal di tàkk loolee tax nag ñu jàppoon ki nga xamante ni moo di Oustaz Assane Seck ki nga xamante ni yoon war naa wax ci ay mbiram mooy ki nga xamante ni mooy di rapport bii di dof Euh, moo Talla Gaye alias Nit Doff ni tey jii nag yemoo ko jeudi fukk fukki fan ak ñett weeru novembre war naa jàkkaarloog doyen des juges bi nga xamante ni moo di Omar Maham Diallo mu daal di addu si mbiram moome